Christian Sambou ñu ngi lay nuyu. Sylvie maa ngi lay fay Sylvie Faye. waaw may wax ni yow docteur nga en sciences politiques nekk expert en relations internationales ay fan rek euh, ñu tàmbali euh, campagne électoral bi euh, jongante élection législative yi ñu war a. Mhm. nekk juillet. tey ñu nemmeeku mm. violence déjà ci biir campagne bi euh, mm. Guédiawaye rek gis nañ fa ñi nga xam ne ñooy partisan maire bu ville bu Guédiawaye ay dara euh, mm-hmm. ñi ngi doon euh, jàmmarloo ak partisan maire Maracine Talla bu commune bu Wakhinane Nimzatt est-ce que luñ doon xaarandi la ak ban analise ban jàngat nga ci mën a def waaw Sylvie soxna Sylvie violence daal daa daa am ci euh, ci politique ci haute politique te Sénégal euh, saa yu yuy dem ci joŋante élection euh, fitna gi day day gën a te day law en fait du coup ci parti politique yi boo xoolee bu baax luy indi fitna mooy mooy ay conflit pour pour ay post ay position euh, mooy gën a indi confrontation yi entre militants yi léegi nag euh, lu ñu euh, xaalis tamit mën na bokk ci loo loo xam ni mën na indi fitna fitna googu mais boo xoolee fitna bu ñu bu ñu bu ñu gis démb Géejawaay Euh, euh, loolu wane na ni que fitna yàgg na ci parti parti boo parti Benno Bokk Yaakaar ñi euh, nga xam ni en fait saa yu daje dajaloo amee ci ñoom ci seen diggante par militants yi dañuy faral di di dóorante ay xeer ay xeer entre ñoom mm-hmm. loolu nag daf ñuy fàttali ko discipline ah discipline de parti li ñuy naan discipline de parti mais tamit lan mooy euh, jeexantal euh, militant militantisme militant lan la war a def ci parti parce que militant xeex moo ko yóbbu ci parti euh, mais fitna gi moom ci ci ci société bi yëpp la law boo xoolee suñu kër yi sax fitna gi entre jëkkër yi ak soxna yi instant da dangay am fitna ba voilà soxna si faatu ah, ñuy faat soxna yi boo xoolee ci yoon yi sax xale yi ñuy utiliser ñu naan yeneen saay talibé fekkee du ñu ay talibé donc ay exploitation la ay travail forcé loolu ay xeetum fitna la donc boo xoolee tamit suñu gouvernance lu ñuy yoree suñu suñu dëkk suñu suñu alal tamit corruption bi bëri na càcc gi euh, luubal xaalis réew mi mais tamit ay njiit yoo xam ni euh, voilà ci kanamu kanamu coono coono yeneen population yi Euh, duñ ci indi ay ay ay ay saafara donc dañuy indifférent complètement ci ci coono coono coono population yi coono citoyen loolu yëpp ay xeetum fitna la mhm. léegi nag fitna nag pour résoudre ko am ay charte réew bi ay am am na ay loi yoo xam ni mën na permettre mën na solutionner genre fitna yooyu justice bi war na ci jouer rôle bu baax ñu moytu ay justice euh, boo xam ni euh, Euh, justice à géométrie variable donc justice ñëpp la fi war a nekkal loolu mooy permettre fitna gi wàññeeku ñëpp xam ni que bon ñu ngi ci état de droit ku def ku def naka sudul noonu rek euh, loi bi day dal sa kaw dëgg la euh, ñun euh, Christian suñuy euh, politique yàggal nañu tàmmal violence surtout violence verbale bi. Mhm. voilà léegi tey nag ñu nekk ci campagne mu mel ni est-ce que violence yooyu du gën a yokk mun nañ ni yeneen violence yu war amaat parce que campagne bi jeexagul. Mhm. alors violence verbale yi nag mooy saaga yi xaste yi. loolu loolu tamit dafa dafa yàgg bokk ci ci politique mais léegi ak jamono réseaux sociaux yi tamit daa gën a mais violence verbale yi dañuy xool il faut ñu xool tamit fan la jóge yeneen saa yi dañuy gis citoyen boo xam ni nakaram du nakaram du am fu mu koy waxee du coup euh, restriction yooyu euh, mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy indi en fait yeneen yeneen euh, violence violence verbale yi yeneen saaga yi yeneen yeneen kii donc war nañu war nañu liggéey pour jox citoyen loo xam ni ay cadre yoo xam ni comme média yi seen média yi citoyen mën nañu wax seen xalaat mën nañu wax lu leen métti mais boo leen ko bañalee dañuy dem ci réseaux sociaux tamit di def euh, di def naka mais léegi boo xoolee ci ci cadre cadre politique bi violence verbale moom munu munu munu fa ñàkk dina continuer am euh, léegi bon lu mu mën a def rek mooy ñaan rek pour violence verbale yooyu wàññeeku mu bañ a jur en fait ay violence physique parce que violence physique yooyu ñoo gën a def dégâts yeneen saa ñu desandi rek ci euh, campagne bi gis nañu inauguration yu bëri yi nga xam ne président Macky Sall mu ngi koy amal Saint-Louis ak euh, yeneen i gox fii ci Sénégal est que nekkul di def campagne déguisée pour euh, ay lieutenant waaw xam nga Macky Sall moom ñaar taxawaay la am président la waaye tamit njiitum parti la donc ci cadre campagne bi bu ko bu ko bu bu defee genre inauguration yooyu bon mën nañ xalaat ni que moom président moo ko def parce que infrastructure d'État la te koppar réew moo ko defar mais mënuñu ko euh, mënuñu ko bañ a boole ak cadre campagne puisque moom chef de parti la te parce que bon bu bu mu nekkoon di dem aéroport ba am na am na ay mbooloo mbooloo bu takku bu ko bu ko accueillir mbooloo boobu bon ñu ci bëri benn mbokk yaakaar lañ bokk donc euh, du campagne déguisée sa campagne la clairement mais bon c'est dommage que voilà genre mélange yooyu ñu ko am donc euh, voilà campagne la carrément du campagne déguisée sax waaw euh, ñu wax rek ci lenteur administrative yi nga xam ni moom la ñuy nemmeeku bu campagne di am rawatina yi yile campagne électorale euh, jëm ci jongante élection législative yi bëri na ci ay directeurs générau yi nga xam ne dañ leen investir ci liste euh, Benno Bokk Yaakaar ñu nar a mu nar a jur ay lenteur administrative te ñoom ñu ci bëri itam dañuy utiliser ay jumtukaay yoo xam ne nguur gi moo ko moom ban jàngat nga ci am bon loolu moom loolu lu pratique yu yàgg la te question dafa yàgg moo tax ñu war ko fi bàyyi pratique yu baaxul la pour suñu développement sax parce que citoyen bi usager bi daa soxla chaque fois voilà am service euh, public de qualité c'est-à-dire DG yi donc euh, fonctionnaire yi mën a disponible pour euh, jox leen service service public boobu am na bataaxal bu ministre bi génnee pour dankafu Euh, genre euh, DG yooyu genre de pratique yooyu mais damay ragal ni bon genre forme rek lay doon ci waxin rek lay doon mais du du ko du ko jëfee puisque amul ay sanction euh, te problème bi problème bi tamit du forcément ci DG rek problème bi politisation bi la politique dafa rax torop ci administration muy côté administration yëpp muy justice muy euh, ba léegi sa léegi sax dañuy wax euh, dañuy wax administration euh, des forces de défense et de sécurité mooy militaires yi gendarmes yi policiers yi donc loolu loolu yëpp lu gra lu graaw la ci ci ci réew mi parce que day day bloqué en fait day bloqué bloqué dëkk bi te lu ñu war a saafara la à travers des des réformes ku nekk xam lan mooy sa liggéey fan nga war a te nar a utiliser tamit jumtuwaayu état loo xam ni ñëpp a bokk pour def ay campagne électorale loolu tamit lu jaaduwul la parce que euh, boo xoolee boo seetee ba seet euh, am na sa am na inégalité parce que ñoom dañuy utiliser waa benn mbokk yaakaar dañuy utiliser ressources yoo xam ni opposition bi amuñu ci donc loolu yëpp iniquité la inégalité la ci jongante yi sax Euh, amul amul euh, égalité de chance ci compétition boobu donc loolu lu ñu war a war a ñaawlu la ay réformes war na am ci lu ñuy financer partis politiques yi lu ñuy limiter en fait financement euh, pour les campagnes loolu yëpp ay ay xalaatin la dañ ci war a toog dañu war a toog nag xalaat loolu yëpp pour dëkk bi mën a gën a gën a am naataange puisque service public yi gën a mën a dox. ñu wax rek ci génn àdduna François Mancabou euh, ba ñu waxee fësalee ni génn na àdduna si le procureur annoncé day jàkkaarloog taskatu xabaar yi euh, ci noonee nag gis nañu li nga xam ne euh, moom la wax nee na dinañ amal autopsie wax ci yenn am la ci yan anam la génnee àddina Euh, en même temps procureur dégg nañ lu mu wax nee na moom moo def boppam blessure yooyu noonu ndax moo doon dóor boppam euh, ci euh, ci mur bi wax na sax am nañ ci ay vidéo yoo xam ne treize minutes la mën na leen servir ñoom de preuve ñoom yow ban jàngat nga ci am si fond bi ak ci forme bi. waaw soxna soxna Faye man moom bon la xam naa François moom gënnam àdduna mu bëri la métti donc ñu bëri daal la métti man personnellement. lu ma xaw a yéem la lu ma xaw a métti euh, maa ngi profité ci sa ci sa appel pour euh, jàll mbokkam yi donc xaritam yi yëpp euh, te lu mel ni loolu en fait lu graaw a graaw la ci ci dëkk buy naan état de droit la maanaam état de droit loi yi day appliqué wu sa ci autorité yi ak citoyen yëpp te ci affaire bi dañoo war a situer responsabilité i muy responsabilité garde pénitentiaire muy responsabilité justice mais aussi muy responsabilité euh, police police euh, police parce que en fait boo xoolee procureur lu mu wax procureur daa ñëw euh, euh, bëgg dakkal euh, thèse thèse torture ba léegi nag ci bëgg dakkal thèse torture ba daal di dugal presque boppam ci naan kooku dafa daan dóor boppam ci mur bi ba mu am gaañu gaañu yu fa am far daal daal fa jaal dee nag loolu nag ci ci ci ci nasaraan non assistance en personne en danger lañ koy woowee donc loolu lépp ñuy responsable ci loolu ñu nekkoon ci surveillance bi normalement loi daa war daa war a tegu seen kaw dañoo daa war a am juge bi daa war xool ay daan yu muy teg ci ñoom loolu mooy état de droit donc euh, mais mais problème problème problème euh, Mancabou façon Mancabou boobu dañ koy dañ koy boole ak yeneen problème yu fi jot a am boo xoolee par exemple euh, torture nu ñu dóoree gaañe euh, mooy sëriñ bi ñas te gaa yi ne police ñoo ko defoon. Mm-hmm. boo xoolee par exemple ci manifestation yi le fait ñuy utiliser ay balles ci fee ci Casamance waaye waaye tamit ci Dakar di rey ay nit yoo xam ne dañuy manifester manifester seen seen droit rek loolu yëpp ay ay ay situation yu graaw la situation yu yéeme yoo xam ni bon euh, yoo xam ni day delloo day delloo ganaaw suñu réew delloo gannaaw suñu suñu suñu suñu état de euh, de de de droit te autorités yi daa mel ni ñu ngi ñu ngi criminaliser ñu naan criminal léegi daa mel ni manifester sa crime la ci dëkk bi te loolu nag jaadoo démocratie duy doxee noonu manifestation droit constitutionnel la ndeyu charte réew bi moo ko permettre donc euh, autorité bi warul criminaliser euh, droit lu tax loolu nag parce que am nañ am na jot nañu fi am voté waa député yi voté euh, loi contre loi sur le terrorisme Euh, contre le terrorisme pardon euh, loi loi boo xam ne daal xam naa ni bon tooguñu bu baax euh, togg ko xam lu ci dérivé dérivé bu baax puisque loi boobu day day day tax en fait ñu condamné ñoo xam ni ay citoyens lambda ñuy manifester la en fait mën nañ leen condamner poursuivre pour des actes des actes de terrorisme mais boo ci boolee loi boobu nga jël torture nga jël nga jël lépp luy rey rey ay nit yuy manifester yooyu ay instrument yu garaaw la ay jumtuwaay yu la yu ñuy gis en fait ci dictature yi voilà ay Sénégal daañu woon gis euh, genre affaire yooyu donc cocktail boobu daa baaxul pour suñu réew. Mm-hmm. donc war nañ xalaat ci loolu yëpp. Euh, xool waxante dëgg nag par rapport ak violence bu nekk di law nag di gën a nag te autorité bi di ci di ci am part de responsabilité bu ngand parce que moo moo moo yilif ñëpp. te xam ni tamit bon au-delà de l'émotion parce que affaire François bi ñëpp lu métti man métti na ma personnellement parce que boo nekkee voilà boo nekkee père de famille voilà wala nga nekk euh, doom doomu jàmbur instant yi xalaat jabaram sax donc euh, lu muy dundee lu muy dundee dundee affaire yi boo xoolee loolu yëpp caractère émotionnel boobu nga ñu fa affaire bi dañ ko war a dañ ko war a leeral en fait responsabilité yi dañ ko war a situer par exemple Amnesty International laaj na def enquête indépendante donc euh, man nangu d'accord naa ci enquête indépendante boobu mais bu ñu bu ñu jógee ci enquête indépendante boobu sax il faut que ñëpp ñuy ñëpp ñuy liggéey en fait ci genre administration yi muy ay soxna muy ay cour en fait ñoom sax ñi ñi def benn genre introspection benn genre euh, travail de conscience ñi xam ni que seen seen liggéey du ay du rey ay nit rey ay citoyen seen liggéey mooy sàmm citoyen protéger citoyen seen liggéey mooy euh, même bu fekkee ay bandi la wala du ban du bandi sax mais du fekkee ay dëgër gars yi dëgër topp la ñuy jàkkaarloo ñi xam ni que seen liggéey ñoom dans tous les cas toutes les pressions ñoom dañoo war a protéger di protéger di loolu mooy seen liggéey loolu mooy tax suñu dëkk avancé. d'accord ñu jàll rek wax ci euh, évasion Pape Mamadou Seck ba jamono ji euh, directeur administration pénitentiaire génn na jàkkaarloo taskatu xabaar yi waaye euh, li mu wax daanaka ak li sénégalais xam déjà benn la Euh, ay laaj yu bëri samp ñu bëri di laajte ndax euh, amoon na ay garde ba muy daw ñaata garde ñoo fa nekkoon ana caméra de surveillance yi muy ay laaj yu bëri daal yu amul tontu euh, loo ci xalaat ndaxte tey ñu bëri ñu ngi joxañ baaraamu tuuma administration pénitentiaire ak police. waaw waaw dossier boobu rek comme lu ma lu ma jógee wax léegi nii comme Boss Boss François la rek donc dossier tamit bu bu la dans tous les cas. bu fekkee sa daa évadé wu am na ñu ci ñu ci am responsabilité bu ngànd muy euh, waa waa pénitence muy muy euh, waa institution hospitalière yi sa donc euh, dem na ba évadé wu responsabilité ñu war a situer muy waa police sax donc dans tous les cas on situer les responsabilités te nañu ñaan rek mu nekk mu nekk ci jàmm hmm? et que mu mu dellu mu dellu en toute tranquillité en toute liberté en fait ci ci ci ci ci ci ci famille mais loolu loolu yëpp dañ cee boole en fait ci problème yi ñu am euh, famille ci cadre politique ci cadre justice ci cadre loi yu ma sànq ni politique jarul yeneen Euh, nguur jarul yeneen yi donc dañoo war xalaat ni tamit ñooñu ay citoyen lañu mën nañu bañ a ak benn projet war nañ leen bàyyi nag may leen ñu exprimer genre projet yooyu yëpp. Mhm. Christian Sambou ñu ngi lay gërëm bu baax. maa lay gërëm soxna Faye. voilà di fàttali yow euh, expert nga en relation internationale nekk docteur en sciences politiques itam.